dal leen jàmm ñi jàppoon ni président Lamine Diack laale wut ci xaalis bi Russie yëkkati woon ngir financé ci u njiitu réew Macky Sall ci atum 2012 ngir daaneel ki nga xamante ni moo fi nekkoon président ci jamono jooje di Abdoulaye Wade ñooñee bu boo ñu tëj seen gémmiñ te xam ni jum nañ bu ñu sukkandikoo nag ci ab rapport boo xamante ni journal bi di Libération siwal na ko ab juge buy wuyoo ci turu Ruy Mbekk mu ngi wane ni ci di Lamine Diack doon combat politique contre kii di Karim Wade waaye tamit ak papam ja président Abdoulaye Wade yooyule combat politique nag ñi nga xamante di ñoo di Russie ñoo ko financé woon jaarale ko ci seen ambassade bi nekk Dakar waaye tamit ak participation financière ju jëmoon ci AGEJ yi ak financement mouvement des jeunes loolee lépp nag la ko taxaw na jóg moo di daaneel nguuru Abdoulaye Wade Lamine Diack nag li mu ñi nga xamante ni moo di enquêteurs jàppale mu financé li nga xamante ni moo di déplacement jeunes yi ngir daaneel nguuru président Abdoulaye Wade président Lamine Diack nag mu ngi xamle ni dafa soxla woon xaalis boobee ngir luwe ay oto waaye tamit luwe ay salle yu nga xamante ni danañ fa amal ay meeting waaye tamit fabriquer ay tract yoo xamante ni dina ko distribuer ci village yi ak quartier yi ak ville yi nekk ci Sénégal yëpp loolee nag nee na la ko taxawoon a moo di mu dal di jéem a gagné capitale bu Sénégal bi di Ndakaaru jàkk nag jotoon na arrêté politique ci atum 1993 ginnaaw bi nag mu daal di dellu si waat ci atum 2005 ak atum 2006 jamono joojee nag baayu Massoata Diack ji jot na posé wu ci régime président de la république Abdoulaye Wade jëmoon ci tabax stade assan Diouf bu nekkoon ca Rebeuss nga xamante ni chinois yi ñoo ko doon tabax boobule stade nag ñi ngi ko sax daal di toj ci atum février 2008 ca noonee nag Lamine Diack dal di ŋàññoon publiquement doxal doxalinu Karim Wade ndax kat dafa jàppoon ni doomi président Abdoulaye Wade ji dafa amoon ambition nekk maire de Dakar ci élection municipale yu 2009 yi loolee waraloon sax nag ba lamin Diack waxoon ni dina def kémtulaay kàttanam ba ñu gañee Karim Wade ci élection municipale yu 2009 yi te noonee nag mu daal di tàllal loxo ñi nga xamante di ñoo di Russie yi jaarale ko ci Valentin Blagnichev mi nga xamante ni nekkoon na ca jamono joojee conseiller présidentiel bu njiitu dayoo bu riis ci lu jëm ci wàllum sport ginnaaw sollicitation lamin jaag bi nag gouvernement bu yi dal di yëkkati lu toll ci deux cent millions teg ko ci loxo Lamine Diack ngir mu waajal ci campagne am xaalis boobee nag moom la dal di fay rek jeunes yi ñu doon wër Sénégal ba tax ñu daal di gagné élection municipale yi ci atum 2009 ndax kat koppar yooyee ci la dal di soutenir opposition ba ñu daal di dajale assise nationale yëpp ci atum googee ginnaaw élection yi nag ñetti at rek lañ ci tekk ci atum 2012 ñu daal di organiser élection législative ak élection présidentielle ca noonee nag Lamine Diack daal di delluwaat ci gouvernement bu riis ngir ñu jàppale ko pas ngir mu nekk président waaye nag mu daal di jàppale opposition bi ba ñu gañee Abdoulaye Wade ca noonee nag gouvernement bu riis daat koy joxaat lu toll ci huit cent millions Lamine Diack daal di xamle ni ni xaalis boobee daanaka genn wàll gi yëpp opposition bi ñoom la ko joxaat waaye nag ginnaaw bi nga xamante ni juge bi laaj na ko mu cité tur président Lamine Diack dafa lànk rek ni du tudd benn tur laaj bi samp nag moo di yan opposant ñoo jota laal ci xaalis boo nga xamante ni Russie joxoon nañ ko président Lamine Diack lu mu ci man di doon fan yi di ñëw dinañ ci xam lu leer